ak wëlu yàlla yi ak ku jubale jëm ci yàlla ci dar su fukkeel ak benn Cheikh Ibrahima Niass mi ngi wax mu ne ci téere bi mu ne wa min xadiisa aïchata faqadtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin fa atbaatuhu fa ida huwa fi mashrabatin yusalli fa raaytu ala rasi salaasata anwaarin fa lamma qada salaatahu qaala raaytil anwaara qultu naam qaala إن أتي أن أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي مكان كل واحد من سبعين ألفا سبعين ألفا بغير حساب ولا عقاب mu ne ndey Aïcha radiyallahu anhu solo na nettali na nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama ko fakk benn bés dama toog rek daal gisuma ko ma di ko war benn bés ma topp ko ba fekk ko ci benn bërëb mu ngi julli ma daal koy xool gis ñetti màndargay leer ñetti leer ci boppam kaw boppam bi bi mu nappalee julli ba pare ndeyaay sa ne yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ma ndax gis nga leer yi ma ne ko waaw waaw gis naa ko mu ne ma aji dikkal aji dikk moo ma dikkee dikkal ma jógee ci sama borom bégal na ma ne yàlla dana dugal aljanna ci sama xeet ci palaasu kenn ku nekk ci juróom-ñaar fukki junne yooyu juróom-ñaar fukki junne ci lu dul xisaab ak lu dul enquête ak mbugal summa ataani fa basharani an allaha yudxilu min ummati makaana kulli waxidin min sabina alfan almudaafata sabina alfan bi geyri xisaabin wala iqaabin mu ne mu ñëwati li ma weneen yoon daa may bëggal ne yàlla dana dugal ci sama xeet ci bërëb palaasu kenn ku nekk ci juróom-ñaar fukki junne yooyu luñ gën a fulal juróom-ñaar fukki junne yoon ci beneen yoon ci dut xisaab ci dut enquête ci dut mbugal fa qultu ya rabbi laa yablugu hada ummati mu man sama mu ma sama borom lii du du daj sama xeet qaala ukammiluhum laka min al aarabi mimman laa yasuumu wa laa yusalli mu ko su boobaa dinaa la ko bottal mottalil ci wàllu arab ñi nga xam ne duñ oor te duñ julli qaalal qaalal kalabaziyu المراد بالأمة أولا أمة الإجابة وبقوله آخر الأمة اتباع فإن أمته ثلاثة أقسام وأم خم خمي وكلابازي نينا لجنا مشي قياد نك mooy xeetu wi nangu waxuñ population yi ñëpp rek déedéet ci àddina ñi nga xam ne nangu nañ oote yonent sallallahu alayhi wa nañ ko gëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim namm tamit ci aaxiru umma mooy ittibaa mooy topp ko sallallahu alayhi wa sallam ndax fa inna ummatahu sallallahu alayhi wa sallam ku ne xeetu yonent sallallahu alayhi ñetti xaaj la bismillah ahaduha axassu min al axar ummatul itbaay summa ummatul ijabati aleykum salaam summa ummatul daawati xeetu yonent bi sallallahu ñetti xaaj la benn xaaj bi mooy bi gën a jagleen beneen bi xeetu yi topp yonent bi sallallahu di ko roy ak xeetu ñi ko uyu أقيتي أوتبي فالأولى أهل العمل الصالح قيد ونجكوي موي ينجف يباخي بي والثانية مطلق المسلمين قيد نيار البي قيد نيار بي موي مبالي جلد سين جلد نيسان والثالثة من من من من عداهم يتعلن موي ميرو نيونيو ممن بعث إليهم ويمكنوا الجمو ينخمني يوني ننجم شنيوم ويمكن الجمو بأن القدرة قدر الزائد على الذي قبله هو مقدار alxasiyaat faqad waqa inda ahmad min riwayatin mu ne mën nañoo daal jàpp ne dayo ak daytal bi nga xam ne moo jiitu moo moo moo dolleeku kon laay wax ci li jiitu woon mooy dayoob tubbi nuyoo boobu yàlla waxoon ci hadis bi ne dana tubb tubb na ci loxoom dollil ko faqad waqa inda ahmad min riwayati qatarata عن النضر بن أنس عن غيره أو غيره عن أنس رفعه إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف من جري ننجي صلتي حديث بو خمني أحمد موكو صلو صلو كو قتادة مجري كو نضر بن, بن أنس أكود الموم جري ننجي أنس رضي الله عنه مجكتكو ني الله وحنا يونس صلى الله عليه وسلم يالا دغنا ما دنا دوغال الجنه سما خير ñeenti téeméeri junne fa qaala abubakar zidna ya rasulallah abubakar sidik na ko yow bi salaa sama dolli ñu fa qaala hakada wa jamaa fa qaala zidna mu mu boole ñaari loxo yi ne nii ko dolli ñu fa qaala wa hakada mu ne ak ni mu dolliyaat fa qaala omar xasbuka inna allah insha adxala xalqoo jannata bi kaffin waaxidatin mu ne ko doy na Babacar ne ko Omar ne ko doy na ndax yàlla bu ko soobee rek ci benn tànkam rek mën naa dugal mbindeefam yëpp aljanna fa qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam sadaqa Omar yoon saa Omar wax na dëgg wa sanaduhu jayyidun mu ne aska mu ne ndëstërwaayam lu baax la lu yiw la lakin uxtulifa ala qataadata fi isnaad yi ixtilaafan kasiran waaye nag dañoo uutee ci qataadata ci askanal bi mu askanal ak wéeru bi mu wéeru xadiisam yi uutee bu bëree bëree bëri bëri jeex na wax jooju فقال حافظ بن حجر عند شرح حديث الشفاعة الطويل وهو معروف مشهور لا نطيل به قالوا في تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق من قتادة من حافظ كن لا من حافظ بن حجر bi muy sarax xadis xadisu ràmm bu gudd boobu te bu xadis bu ñu xam la bu siiw la te duñ guddal foofu te wax na ne nekk na foofu ci wax jooju mu wax mu ne tafdilu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne gënale muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ala jamii alxalq ci mboolem mbindee fi mom suñu sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wasallam sallam leen rusula wal anbiya wal malaika afdalu min man siwa mo ndax yonenti ak anbiya ak mursalina yi ñoom ak malaika ñoo gën ku dul ñoom waqad zahara fadluhu fi hadha al maqam alayhim mo ne nga ne la moom sallallahu alayhi wasallam sallam feeñ na maqaamam feeñ na ci seen kaw ci fii qaala alqurtubi walaw lam yakun fi dalika illa alfarq su xutub mooy wax su fekkoon ne amul lenn de seen diggante ci différence lu dul ne na man yaqulu nafsi nafsi bay bayna man yaqulu ummati ummati lakaana kaafiyan mu ne doy na rek ne yowmal qiyaama yonent yëpp ñoom ñëpp nit ñi dañuy daw jëm ci ñoom di sàkk wàllu ñu naan leen nafsi nafsi yéen suñ bopp rek lañ tal yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi nag moom dañuy daw jëm ci moom fekk ko mu naan ummati ummati sama xeet sama xeet mu ne kon kii wax ne man rek man rek laa tal ak koo xam ne moom talut sax boppam moom mu ngi oo xeetam sammu xeetam ah kooku yaakaar naa loolu doy na ne moom moo gën yonent yi yëpp wa fii tafdilu lambiyaa il mazkurina fii ala man lam yuzkar li tahlihim li dalika li tahlihim li dalika al maqaam al azim duna man siwaahum moo tamit nekk na ci foofu tamit gënal la yem yonent yi nga xam ne nii da nga yiñ tudd ci yiñ tuddut ndax am nañu alquran tudd te noonu la ko alquran waxee ak ñi nga xam ne ni alquran tudd leen kon ñi ñu tudd ñoom ñoo gën ñu tudd loolu tamit moo ci topp ci ngëneel daraja gannaaw yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne intaha foofu la wax jooju yem waqad allafa al imaamu jalaaluddin suyuti taalifan sammaahu tazyinu al araiki fi irsaali nabii sallallahu alayhi wa sallam ila al malaayiki mbaay nges mu ne radiyallahu anhu ki ñuy wax imaamu jalaaluddin taalif na téere tuddee ko taaral taaral taari taaral lal yi taaral yëkkatiku waay bi dégg nga ci yónne ko yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci malaaka yi mu ne guddal na ci téere boobu lool ataara fii wa jalabal adillata ala no sallallahu alayhi wa sallam nabiyul anbiyaay foofu ay preuve ay dalil yu bëri yu tegtal na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy yonantu yonantu yi waaja sarihun fi afdaliyati yi mu ne nag loolu lu wér la lu bir la preuve la it bu bu bu leer déclaration bu leer la ci ne yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo leen gën qaala fa ida arafta dalika fa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam huwa nabiyu lambiyaay mu ne su fekkee xam nga loolu nag kon yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy yonantu yonantu yi ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لواء وفي الدنيا كذلك من لو تخ ci àlaxira tam loolu dafay feeñ fës lool ndax mboolem yonent yëpp dañu nekk ci ron drapeau moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne fi duniyaa kadalik mu ne ci àddina yi noonu la noonu la mu ne ci àddina tam yonent sallallahu alayhi jullee julli na jiite yonent yëpp walaw ittafaqa majiuhu fi zamani aadama wa nuuhin mu ne su fekkoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ci jamono yu tombe ak mom jamono wala jamono yu nuuhin yonte Nu. alayhi assalam mok adama tombe ak ñom wa ibrahim wala jamono yonte ak jamono yonte yalla ibrahim alayhi assalam wa musa ak jamono yonte yalla musa wa isa ak jamono yonte yalla isa su daje woon ak kenn ci ñi wajaba lan war alayhim ci ñom ñep wala ummatihim al imaanu bi yoon sati sen xet warna ci ñom ñu yonte yoy ak sen xet ñom ñep ñu gëm a bi sallallahu alayhi wa sallam wa nusratuhu ak dimbale ko bi dalika axada allahu almisaaqa alayhim wa risalatuhu ilayhim maanaan xaasilun lahu mu ne loolu coloré la yàlla fasak mboolem yonent yëpp képp yonent bu mos a yónni bépp yonent bu mos a yónni rek wax naa ak yow bépp yonent wax na yow ne la soo dajeeg Muhammad su dajeeg yow nooy def ndax da nga koy topp mu ne waaw ndax da nga ko dimbale mu ne waaw <clears throat> xaasilun lahu innama amruhu وتوقفوا على اجتماع معه فتأخر ذلك الأمر راجعون إلى وجودهم mu ne dafa aju si nag suñu dajeeg moom suñu dajewut ak moom nag ah loolu mi ngi aju gi seen seen ak nekk rek laa ilaa adami ittisaafi bi ma yaqtadi waaye du ñàkk jikkoo ak melo melokaan woo melokaan woo yàlla ko ko bindee yàlla ko may bu wéetee moom kenn moo leen gën bu dajeeg ñoom ñëpp mooy seen ilimaan moo leen gën wa farqun bayna tawaqufi alfiili ala qabuli almahalli wa tawaqufihi ala ahliyati alfaili mooy nag am na différence bu rëy bu nekk da nga diggale bu yaatu bu nekk diggante eh, loo xam ne aju ci jëf ji ak loo xam ne dafay aju ci nangu place bi ak eh, ajoom ci yelloo bi aji jëf ji alfaayil fa haahuna laa tawqufa min jeeti alfaayil wala min jeeti daati nabi saa fii nag moom amul lu ci aju ci dégg nga ci wàllu aji jëf ji du càggan ci wàllu jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ashérifati ba daji tedd وإنما هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه فلو وجد في عصرهم للزموا اتباعه بلا شك من أجل ركشي آه، وأنمو آه، والو جمنو جمنو بيها موم شراء جمع صلى الله عليه وسلم سفكون ني آه، فيهن جمنو لجوانا ينتبه جوانا شين يوم فكون يوم دندو للزموا اتباعه بلا شك سوبا يوم نيب مبارسين كأنه كنش يوم dana la war nga topp yonent saa sam si benn sikki sàkk wala yàlla yaati Isa mu ne lii moo tax yonent yàlla Isa ci mujjëg jamono ala yi ci balaay tukki Isa alayhi salaam dana ñëw su ñëwee ci charia yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lay topp waaye taallaqu bii ci lay aju maa fi min amrin wa nahyin kama yataallaqu bi saa'iril ummati wa huwa nabiyyun karimun ala haalihi lam yanqus minhu shay'un mu ne su boobaa lépp lu ñuy digle ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy topp lépp lu ñuy tere moom Isa alayhi salaam bu ñëwaatee daf koy topp bu wàccee ñëw kadaalika lépp lu aju ci xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom yonent bu tedd la ci xaalaam ci melokaanam te loolu wàññiwul ci moom dara wa kadaalika law bu'isa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi zamani wa fi Musa wa Ibrahima wa Nuuhin wa Adama kaanu mustamiriina على على نبوتهم ورسالتهم wa أمتهم والنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليهم ورسول إلى جميع من سفك ونك nekk noonu ba tey dañu yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci seen jamono wala ci jamono Moussa wa Ibrahima Nuux ak Adama ñoom dañuy continuer ki seen ak yonantu ak seen ak eh, risalatu dégg nga jëm seen xeet waaye yonantu sallallahu ci seen kaw ñoom wa rasulun ila jamii yonent la ci ñoom ñëpp moo leen di ilif wa nubuwatuhu risalatuhu aammu wa ashmalu wa aazamu dégg nga mu ne yonent saa sama ak ak yonentoom moo gën a yaatu moo gën a matale moo gën a jotal moo gën a màgg wa muttafaqun ma sharaay fi rasuli li anna la taxtarifu mu ne tamit dafa dëppoog ñoom ci seen sharaay daal daanaka sorewuñ cos coslaay ba ak cosaan ba ñoom ñoo ko bokk وتقدم وتقدم شريعته فيما عصى ويقع الاختلاف فيه بالفروع إما على سبيل التخصيص وإما على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص من دال باتاي يونتو ساسو مو نين جيتو شريعه مو جيتو سين شريعه امان دار لي لي ام لي اوتي سي شريعه سي تشوسان رك واي اصول بي بن لا بن مو نيك لو خامني لو نكو جاغلال لا ولا مو نيك لو خامني لنكو لا جوي فولي اندي بنن لايه wala léeg-léeg du am folli léeg-léeg du am jagle bal bay tëkkuunu sariyaatu day fekk rek ne eh, sariyaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy sharaf nabi sallallahu alayhi tilka alawqaati ci jamono yooyu nisbati ila ulaayika lu mu ma jaat bi ambiyaahum wala boog fekk ne ni loolu dafay nekk rek comme yonent yi ci seen jamono wa fi haadal waqt bi nisbati ila haadi lumati sharifati wala ci jamono ji jamono mi mu nekk misaalam xeetam mu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam wala axkaamu taxtalifu bi ixtilaafi l asxaasi wal awqaati mu ne atte yi dafay utee ci diggante eh, ak aju ci jëmm yi ak waxtu yi rek noonu la atte yi di utee intaha jeex na wax jooju kalaamu sabki mu ne wax sabki jeex na fii la yem waqad qaala wax na wa yadullu li kawni mursalan bokk na li ñuy tegtal ci nim salaa sallam yonantu la ilaa lambiyaa jëm ci yonantu yëpp maa warada min xadis ubaadata bnu saamiti wa jaabir bnu abdillahi xadis bii nga xam ne rod na tukkee ci waxu ak hadisu ubaadatu bnu saamit ubaadatu bnu saamit ak jaabiru doomi abdullahi ibnu abdullahi marfuwaan di hadis bu rafaa bu ñu yëkkati naqshu xaatimu suleymaan laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mu bi lan la wax mu ne jaaro boobu xam ne yonent yàlla suleymaan moom la moom la yoroon mu ne liñ ci bindoon mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa فهذا في إشارة إلى أنه من أتباع لول دفاي تكتل نيوم أي أي توبي لنش موم شو توبي من بوك واو وهذا التقرير الذي قدره السبكي فقد أشار إليه الشرف البصيري وقد مات قبل مول السبكي بقوله في البرة من لي خمنا السبكي يوخ أه إمام البصيري bu tedd bi junj ko te moom gaañu na lu jiitu subkir junn juddu ci mu ko wax ci téere boobu ñuy wax al burda wa kullu ayin ata rasul kiraamu biha fa innama tasarat min nuurihim bihimu mu ne mboolem kawteef yi nga xam ne yonent yi yu yi dañ ko doon indi yooyu yëpp dafa jokkoog leeram gi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu mën a am xarbaax yooyu ci barkeem lañ ko amee fa innahu shamsu fadrin hum kawaakibuha yudhhirna anwaaraha linnaasi fi zulami mu ay jant yaa moom jant ngëneel lañ mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jant la ñoom yonent yi yeneen yi ci des ñoom ñooy biddiw ya leer gi bàyyeekoo ci jant bi dégg nga ñeel nit ñi ci waxtu lëndam وإذا تقرر أنه صلى الله عليه وسلم كان نبي الأنبياء ورسولا في رسولا ورسولا ورسولا إليهم وقد قامت الأدلة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة لازم أن يكون مرسولا إلى الملائكة وأن يكونوا من جملة أتباعه بطريق الأول أو بطريق الأول مناسفة كان سحرا أن ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم yonantu يننتي إلى مرسلين ak mursalina yi yi ko yónni ci ñoom preuve tegtal bu dëggu boo xam ne nii day dëggal ne yonent yi yonent yi euh, dëgg dëggal ne dëggal ne yonent yi ñoo gën malaaka yi war na it ne moom yónni nañ ko ci malaaka yi loolu da wax jooju day warlu loolu wa wax tamit ne dañuy bokk ci ñi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yoon wu njëkk ad dalilu ashiru mu ne tegtalu fukkeel bi nag annahu sallallahu alayhi wa sallam utiya min al malaikati fukkeelu tegtal bi wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën te yoon wala yi annama utiya annama sallallahu alayhi wa sallam utiya min malaikati umuran li wane ne moo gën malaaka moo gën yonent yëpp may nañ ko ci malaaka yi loo xam ne nii mm, defal nañ ko loo xam ne defalu ko defalu ko keneen ci yonent ko keneen ci yonent yi ko jiitu woon a sallallahu alayhi wa sallam annama sallallahu alayhi wa sallam utiya min malaikati umuran bokk na ci yooyu ñu ko may may ko kenn bokk na ci yooyu bi naa xitaalum maawo xeex ak xare biñ daan def ñoom saxaaba yi ak yonent bi malaaka yi dañ daan ñëw di dimbale yonent bi sallallahu alayhi loolu nag yonent yi jiite woon amuñu woon loolu wa minha mashihum xalfa zahrihi ida masha mu ne bokk na ci may yooyu ba tey mu jagoo yoon saa bu daan dox malaaka yi dañuy dox ci gannaaw ndiggam ni ci gannaawam topp ko إذا مشى وذلك يدل على أنهم من جملة أتباعه ولا في تكثر لن يوم العكيش تقوم لن يبقى صلى الله عليه وسلم وداخلون في شرعه لا يتكثر لن تمير دقنا في شرعهم ومن كلام الرافي في خطبة المحرر وأخدمته ملائكة وقال ابن عباس في قوله تعالى له مقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من بكر شبه رفاعي rafi bokk na ci waxu raafi ci xutbatu boo xam ne nii xutba buñ goreel mu ne wa axdamatu malaayikatu mu ne yi xidmaal nañ ko salallahu alayhi wa wa qaala ibnu abbas fi qawlihi taala lahu yàlla wax na benn laaya ibnu abbas wax na ci laaya ja ne yàlla mu màgg taala wax ne dégg nga lahum aqibatum bi dim xal fii min amrillah am ay malaaka yu utuwante guddi ak bëccëg ñii dañuy xëy ñii dañuy gontu bu ñuy dem ñeneen ñëwaat ci wàllu ndeyjooram ak ci gannaawam yaxfasunoo min amrillaahi di ko wattu ci mbiram yàlla sallallahu alayhi wa sallam hadiyi li nabi sallallahu alayhi wa xaasatan mu ne lii nag moom yoonu sallallahu alayhi rek moo ko am moo ko moom moo ko am ci jagre sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah wal muaqabatul malaikatu mu ne way utu wante nag malaayka li yaxfaduna muhammadan yaxfaduna muhammadan salaa sallam dañuy at dañuy sàmm muhammad sallallahu alayhi wa sallam axrajahu ibnu mundir mu ne ibnu mundir génnee na xadis bi taxrij ko ibnu abi xaatim ak doomi ibnu abi xaatim ak wa tabarani ak tabarani wa ibnu mardawayi ak ku ñuy wax ibnu mardawayi wa abu nuaym ak abu nuaym fi dalaayil ci téere bi ñu wax ad dalaayil tegtal yi wa minha أن ما ورد في الحديث إن الله أيدني بأربعة وزراء اثنين من أهل السماء جبريل وميكائيل واثنين من أهل الأرض أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم يونس بي صلى الله عليه وسلم من باي من بوكو نتي تكتلي تكتلني أموت كام تمو غن يونتي تملاك يتمين نينكو توب موي ني صلى الله عليه وسلم ورد نجي حديث ني يالا يونتو ما صلى الله عليه وسلم يالا dimbale na ma ñeenti ministre yu may dimbale ñaar ñi ci ñooñu asamaan lañ bokk muy jibril kenn ki keneen ki di mikaayil ñeneen ñaari ci ñooñ suuf lañ bokk kenn ki di abubakar siddiq keneen ki di omar ibn xataab wal wasiru min atbaa'il maliki bàyyi mu ne wax ji nettali mu ne wasir euh, mooy jaraaf mooy ministre ci toppam buur lay bokk daruratan loolu lu obligatoire la daruri la lu mënta ñàkk la fa jibril wa mikail ruusu ahli millati min al malaikati kama anna ababakrin omar ruusu ahli millati min bani adama mu ne jibril ak mikail ñoom ñooy njiitu mm, xeetam ci mala xeeti malaaka yi kama anna ababakar siddiq ak omar xataam ñoom ñooy njiitu xeetu doomi adama yi wa minha annahu lamma maata sallallahu alayhi wa sallama salla alayhi almalaikatu bi asrihim lam yataxallaf minhum ahadun mu ne bokk na ci liy tegtal na yonent sallallahu alayhi moo gën mboolem yonent yi ak ne malaaka itam moo leen gën te ñu ngi ko topp sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee àddina malaaka yëpp ñëw nañ jullee yonent bi sallallahu alayhi te kenn ci ñoom eh, tardewut kenn ci ñoom wuuteewut loolu ولم يقع ذلك لغيره من الانبياء من لولو امول كين كوكو ام تي يونتي كو جيتو ون صلى الله عليه وسلم ومنها ان الملائكه يسالون الموتى في قبورهم عنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لاحد من الانبياء بوكو نسي تكتلي تكتل ني باي غيس موي وخ باتاي بوكو نسي تكتلي تكتل ني ملائكه ني يونتو صلى الله عليه وسلم مو غن ييب مو غن ملائكه ملائكه ينكو توب mooy am ne am na ci malaaka yi lu kenn amut ne malaaka yi dañ leen di dañuy laaj néew yi ci seen bàmmeel yonent bi sallallahu dañ koy laaj dañ leen di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag nekkut ñeerut keneen ku dul moom beneen yonent amul loolu sallallahu alayhi wa sallam wa minha an al taxduru ummatahu إذا قاتلت العدو في سبيل الله لنصرة دينه وهذه خصيصة مستمرة إلى يوم القيامة mu ne bokk na ci tegtal yi tegtal na yonent sallallahu moo gën ñëpp yonent yëpp moo gën malaaka yi te malaaka yaa ngi ko gëm topp ko mooy ne malaaka yi dañuy teewal xeetam suñuy xeex ak seeni noon ci yoonu yàlla ngir dimbale diine ji mu ne xusuusiye bii nag dégg nga bu saxla te ba pencam yàlla wa minha anna jibril alayhi salaam yaxduru man maata min ummatihi yatrudaanu cheytaana fi tilka alxaalati mu ne bokk ci tegtal yi ba tey yoonu saasa moo gën yonent yi te malaaka yi tamit ñi ngi ko topp moo leen gën jibril alayhi salaam dafay teew bu amee ku dee ci xeetu yonent bi sallallahu ci jurit ñi ngir dàqal ko seytaane ci melokaan woowu mu nekk wa minha an al malaikata tanzilu fi kulli sanatin laylata qadri ala ummatihi wa tusallimu alayhim mu ne bokk na ci tegtal yi ba tey wane saasa moo gën yonent yëpp moo gën malaaka yi te malaaka yaa ngi ko topp mooy malaaka yi dañuy wàcc at bu jot ci guddig laylatul qadri ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi nuyu di leen ñaanal wa minha annaha أوتيت قراءة الفاتحة من كتابه ولم توت قراءة شيء من سائر mooy ويحرص على سماع بقية القرآن من الإنس mu ne bokk na ci tegtali ba tey ne may nañ xeetu yoon bi sallallahu alayhi wasallam ñu jàng faatiha te loolu may njàng benn téere bu jiitu woon seen xeet way loolu nag lu xër la xër na ci lool ci dégg درس القرآن دومي آدمي ولس يننتري ومنها أنه نزل إليه صلى الله عليه وسلم في حياته من الملائكة ما لا ينزل إلى الأرض منذ خلق كإسرافيل من بكون تكتل تكتل نيونتي على محمد صلى الله عليه وسلم موغن بولم ينتيب moo gën malaaka yi te malaaka yaa ngi ko topp mooy ne wàcc na ci yonent bi sallallahu ci xeeti malaaka yoo xam ne ci dundam mës su ñoo wàcc ci kaw suuf bi yàlla bindee àddina bi ba ci jamono yonent sallallahu alayhi ba faw kooku kan la muy israfil wàcc na fekk si yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa minha anna malakal mawti istadana alayhi wa lam yastadin ala nabiyin qablahu mu ne malakal mawti daf ko tàggu moom yonent sallallahu alayhi te mës ta tàggu ku ومنها أنه وكل بقبره الشريف سبعون ألف ملك يضربونه بأجنحتهم ويحفونه ويستغفرون له ويصلون عليه كل يوم إلى أن يمسوا فإذا أمسوا عرجوا وهبت سبعون ألف ملك كذلك حتى يصبحوا إلى أن تقوم الساعة الله أكبر تكبير الله أكبر منيه bokk na ci tegtal yi tegtal ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yi yëpp yi ko jiitu woon muy ne moo gënit mboolem malaaka yi te ñu ko topp mooy ne yàlla dafa wakiil ci xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dariham bu tedd bi ak shérif juróom-ñaar fukki junney malaaka yoo xam ne ñu ngi jël seeni mbagg door ko foofu campé foofu nekk ay gardien ci seen mbagg foofu ak seen i ñu ngi ko peeg bu fekk darut yontu salaa salama di ko jéggalul yàlla moom yontu bi salaa salama di julli ci moom moom yontu bi salaa salama parce que bu set ba ba ñuy gontoo suñ xëyee gonto su fekkee gont nañ ñu ngi dañuy yéeg dellu ci asamaan moom yeneen juróom-ñaar fukki junne yi wàccaat su ñëwee ci ay malaaka ñoom def ni xëyoon def ba ba ñuy xëyaatee noonu lañuy ñuy ba pencam yàlla jeex na wax jooju bàyyi moo ko nettali radiyallahu anhu وقال في روح المعاني عند قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال والمراد ببعضهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم من صلنا صلنا وقتي تير من يهره البيان تيبي من فري لا يجي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يوري ري نيوني راي نونت من ي maa gënal ñi gënal ñenn ci kaw ñenn ci ñoom bi mu firi loolu wax na moom aji firi ji ne xaala wal muraadu bi baatihim xaw na annabi sallallahu alayhi wasallam li ci gënal naa ci yonent yi ci kaw ñenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ci namu moo ci gën kama tun biu anhu la xabaaru bi kawnihi afdal minhum fa innahu qad xussa bi masaaya تقف دنا اللماني حصرا وامتاز خواصا علمية وعملية yonent bi salaa sallam ba tey ci misaal loo wax jooju day tegtal ci xibaar ne yonent salaa sallam moo leen gën te te jagleel nañ ko ci ay jagle yoo xam ne ne daal koko ko sàkku yi da ngay mujj perte rek da ngay mujj rëccu waaye doo ko jot jagoo na tamit ci ay jagleel yoo xam ne da nga ci ilmiya ci ko jag xam-xam ak amali ak ko لسان jëf la yastatiu lisaanu dahri laha xasran ورقى على فضل ورفعت له على كواهله الأعلام ووطعت له رؤوس الشرفات الشرف فقبلت منه الأقدام فقبل فقبلت منه الأقدام فهو المبعوث رحمة للعالمين يوند صلى الله عليه وسلم دال كوينا يكتكون اللول ci seen kaw ci seen ndigg ci seen bopp kaw woy sang yu tedd yooyu yëpp ñu mën a doon diri na seen mbaanu si mbaanam seen kaw ci nga taxaw na gi seen kaw bopp ñoom ñëpp ñu tedd ñooñu dégg nga nangul nañ ko sukk nañ run nañ ay tànkam moom daal moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni def ko muy eh, jëm ni yermande ñeel mbooleem mbindaafoon yi والمنعوت بالحق العظيم بين المرسلين والمنزل عليه قرآن مجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ونبي صلى الله عليه وسلم موك نخمنا مهم لن يخل جخنكو جنجكو من دار قالكو چي دق دق قو ماكي چي بين دقين تمرسلين اي موك نخمنا مهم ينتي على محمد موك نخمنا مهم ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم موك نخمنا مهم لن يواجه alquran alquran bu tedd bi alquran bi nga xam ne bu tedd la baatil caaxaan neen du ko dikkee ci kanamam du ko dikkee ci gannaawam dañ ko wàccee wasal ko wàccee ko mu jugee ci buur bu daji xereñ bu xereñee ay jëfam ak i waxam ak i mbindeefam di ko santaakoon xamidin wal mu ayadu diinuhu wal mu ayadu bil mujizaati mustamiraati albaahirati wal faayisu bil maqaami al mahmuudi wa shafaatil uzma mu ne ba tey yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kiñ da nga dimbale yàlla ko dimbale yàlla moo dimbale diineem yàlla moo ko dimbale moom mu yontu sallallahu alayhi wa sallam dimbale ko ci ay ay mujizaat ci ay xarbaax ci ay ay miracle ay kéeb kawteef yoo xam ne dafa sax di law dafay fës di leer di féetee kaw dafa kawe jël ndam li ci maqaamam bi nga xam ne maqaamam buñ gërëm buñ sant bi la ak ramm gu màgg googu nga xam ne mooy shafaatul uzma nga xam ne moom la yàlla jagleel loolu mooy ramu kum ramu rek doo am ram ak yàlla kum joxul ndigal tam nga ramu doo mën a ramm kenn ci àlaxira wal ibhaamu li tafxiimi shani وللإشعار بأنه الفرد الغني عن التعيين من التمد يونتي صلى الله عليه وسلم دايلونا واو وليس دال كم أمود كم دايفو ويت أمود كرن كتون موم تايد طيب، دنجبلوشي إبهام بموي تفخيم كو يكتي كوريك يكتي أي مبرم قمنا تمنى كن لدال كو دايلونا وليس نيدكو رانيه وفي سراج المنير عند تفسير هذه الآية ورفع بعضهم wa huwa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam moom mu demee ci téere bi ñuy wax siraajul munir dégg nga ñu ngi wax foofu ne ci firi laay ja war a faa baax yàlla yëkkati na ñenn si ñoom mu ne moom ko firee moom nu mu ko firee mooy huwa moom muhammadun muhammad la sallallahu alayhi wa sallam darajaatin ay daraja ala gayrihi bi umumi daawati wa xatimi nubuwati wal ittibaa'i kathiratin fi al azmani tawilati wa bi nasfi jamii sharaaya wa bi kawni rahmatan lil alamina mu ne ba tey yëkkati nañ ko ci ne mooy xaatimul ambiya musalin loolu moo ko may loolu ci ngeneel yàlla daawaam tamit moo gën a jotal mooy xaatimul nubuwati sallallahu alayhi wasallam ak mbooloo mi koy topp mooy ëppale mbooloo kadalika da nga jamonoom dafay gudd day wëy rek di dem mooy folli mbooleem sariya yi mooy ndax moom mooy rahmatan laal moom la yàlla yebal def ko muy rahmatan li alamin di yërmaa la ñeel mbooleem bindaafoon yi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim xaq qadri mu dee alazim ñu ngi sant yàlla di dénk suñ bopp ragal yàlla di leen ko dénk di leen dénk maandu di leen dénk bëgg baay ñes liggéeyal baay ñes radiyallahu anhu waaxru daawana alhamdulillahi rabbil alamin jaam bu bi abdu masaru zaati xadimu cheikh ibrahima ñes ibrahima mamoun ibrahima ñes almashhur bi baay mamoun ñes waaxru daawana alhamdulillahi rabbil alamin